waaw acca léegi dama lay wax. Mm-hmm. vingt 22 juin. Brescia la 29 juin. Allemagne mm-hmm. non 28 mm-hmm. juin Allemagne 29 juin Norvège le 5 Bilbao ma jox la Bilbao comme que Espagne nga dëkk. non jox ma Bruxelles man bu Bruxelles bi laay laay waajal quoi. léegi euh, di ñëw Belgique am na. Bruxelles di nga ñëw man Bruxelles laay ñëw ndew ma bëgg. xaaral ma wax la kañ Bruxelles man bañ gaay kii la rek. bul rectifier samay wax. man su ma demee bay wax ni comme normal comme sénégalais yi normal man ban sens lay amati. princesse merci Bruxelles Bruxelles mi ngi nekk le 6 juillet. Bruxelles waali bi sénégalais waaw léegi Soko. waaw may ma ngir yàlla deux secondes. léegi ak war a suy. Adamo e, le six juillet. bëgg naa laa gis Bruxelles. Adamo incha allah e, incha allah. waa déglul xaar balaa ngay dem kon kon jeex na dootuma la saagaat. Adamo balaa dem allo. Kali waaw ba le six juin. tey jii xam naa ni juillet juillet. juillet waaw juillet juillet. waaw déglul yàlla na leen fi yàlla bàyyi ko bu dee leen bu dee deewu Adamo. incha allah léegi sànq sénégalais yi daa am ñoo xam ne dañoo jàpp si sa wax nga ne Kali da ko refule ñu gëm ko léegi dama bëggoon nga laaj ma. aywaay Kali bàyyi refule gi comme ma ko bàyyi bu ci refule woon yaa ngi Sénégal. ah suñu refule woon yaa ngi Sénégal Kali bàyyi refule xam na ni da doon soob rek mais xam na ni eh, noo kay dama laaj bon lu mu mel ma expliqué ko Kali Kali Kali bàyyi rëfule gi amul solo. bàyyi rëfule gi waaw non dama doon dama doon bàyyi rëfule gi bàyyi rëfule gi non bàyyi rëfule gi dama doon fen rek. comme yow Kali non moom xam na na pour moom xam nga rek pour mom man xeexam bi yëguma ko sax. billaahi bàyyi rëfule gi Kali man maa ñëw Allemagne ba toog mais comme sama wële dama ko fàtte. maanaam kàddu yi ma wax nii Kali yaa ngi may kàddu yi mu wax tey amul dara lu ma ciy teg tey ah, wax nga kàddu yoo xam ne bismillah man de yéenewu ma la musiba waaw non mooy ma rek am solo nga wax mais man ñaari saytaane yi moom seen i kàddu du ma ko déglu moom yéen tàmmante ngeen léegi nag ku mu tàngee koy may dama ne leen man Adama Boss day dégg ni képp ku ma soxla maa ngi bon te dinaa dem soirée waali man ku ragal du wax loolu ah. man Adama man bon bi bon bi sunu borom moo dogal ma fàtte mais man moo tax xale jigéen Sénégal yi influenceurs yi kenn ñemewu ci yedda Adama Mhm. <laughs> man boon bi boon bi boon bi daf kenn ñemewu la ñëpp a ngi ci suuf di déglu. man ma de de man toog wax la benn affaire. su ma ba ku ne ma sa bi suusa ngi ci ma dëgg sa ndey. léegi Adama wax la leen de. Adama ngay duul de eh, déglu ma fii yaa ngi may dégg. Adama ngay duul bon bon lan moo tax immeuble yooyu nekk foofu yëpp am na tax. ay ñuul ak bon ay ñuul ak bon administratif yi ñoo fi nekk. mais bàyyi bon kenn kenn dafa ne wala bàyyi bon. amoon bon bi daf ma soxal waay. yaa ngi bon question benn kese la benn question rek la gisuma ko sax fast food mooy duulkat bi ne woon daf may jàpp ba Adamo jàpp confiance wax ko xam <laughs> adduna bi yëpp man kañ lañ may jàpp loolu loolu laa bëgg mu leeral ko ci kanamu sénégalais yi léegi nag da ngay noppi nag boo bëggee ku la leeralal Zahir Fall daa rus ak Adamo Zahir Fall leeralal na ma maanaam awus Mm. dafa am rendez-vous le 16 incha allahu rabbi bu demul nag. amaat mm. amaat bu ko jàppee waa amaat na beneen. bu ko jàppee nag ci li ma Saïd wax li ma wax rek laay wax. Zayd day buur rek yónnee na ma date beeg yëpp ne ma le 16 am na rendez-vous bu demul bu ko jàppee moom la. ban si yow de xam nga fa ngay mujjee teg Zayd di teppi la fal ndayu Zayd. xam naa ne foofu ngeen di mujjee. jànguma arab day man jànguma arab mais le 16 baa ni nii loolu mën naa la ko la wax ay dul la man kay yónnee nga ma ko ba pare. <laughs> waaw la man jànguma arab. 16 avril bii la. waaw lundi xaw ma mardi. waaw. xam nga le 16 avril bu la neexee Choco no stress taalat live am ñu toog ci live bi suba ba guddi duma wuyu ji. te kenn mënul ma saram ndayam non waajooju moom lu muy expliquer leerul. waajooju moom ay wax loolu la wax benn yoon. ay wax ma daal dossier bi bu ma ci waxaat. non problème yi sax a la ko amal sax pour ñu refoulé benn ban intérêt la ko amal sax pour benn sénégalais bu nekk Dubaï di góorgóorlu jigéen ngay def le tout pour a tëj. Eh, eh. a may eh, Fernando tey soo ko jël de. mais Fernando Soko Soko nag nee na mi ngi waajal lu sel Fernando Soko Soko mi ngi wuy Fernando Soko mi ngi waajal lu rëy Bruxelles lay waajal. tey kay jëluma bal sax tey jëluma bal. non damay ñëw Bruxelles. non Bruxelles nag Soko boo ñëwul ma bàyyi la. billahi non non dama ko programmé ba pare. très bien très bien. ziar ziar Fernando aussi. très bien Soko. Awis nuyu naa la man kay léegi laa. maa ngi lay fay Fernando. maa rek maa ngi ah tey di jubóo mais soko nag sa waa laa bëgg a xam. jubóowuñu de ndax damay soog a wane kii ñuy teppi lëfal bu <laughs> <laughs> ah, ngeen teppee sama dafa day benn katte naa fa seen day téeméer de man ma day duul de suñu ndayam ah, yéen wala wax di tëj sama micro ndax dañ moo tax non non parce que da ngeen maa ragal maa leen ëpp laa miñ dàq leen a wax man naa lay duul yow kan nga fi dàq wax lu tax nga may tëj sama micro kon wax ma la dama bëgg nga ñàkk sama sama amoore di wax dangay noppi loolu ngay wax dama foogoon ni ci sama sa amoore wala déggoo sa lëfal nday yow sa yaay ku ma ci jàpp ci yéen ñaar dëgg seen nday yéen ñaar ñi mais ñëwal Dubaay man maa lay xaar Dubaay Adamo dinaa ñëw sa lëfal yaay salbe tamit sonn noonu de sa lëfal yaay salbe dinaa ñëw Dubaay Sogo loo wax. man ni Selbé xam naa ne sonn na de. ah Roqay si gën a ko yëpp di taaw a fu ay Sogo de moom yaayam bokkuñu papa te yow yàgg sa yaay yéen a bokk papa. waaw bàyyi leen yaay bokk papa yàgg sa yaay bokk papa. yàgg woto. waaw eh, Kali ba jot na. ba suba incha ba suba mon frère. jërëjëf yàlla na yàlla defal ñëpp mais mais Kali na lépp. Fernando. Fernando bàyyi Kali da koy sànni xeer bari. waaw jaajëf big up tout le monde jaa ngeen lépp nga wax eh, Fernando nag man nag xanaa xamoon na fi may dem yëpp xam nga laa fa bëgg di dajel mais du ma ko gis. wuy ma wuy ma man du ma seetaan lu ñaaw yow yaa xam lu ñaaw. Ah, man du ma seetaan lu ñaaw. ni nga mel dafa ñaaw. man du ma seetaan ay porno déggoo li ma la man du ma seetaan ay porno yow yaay seetaan yooyu. yow yaa xam loolu mais yow yaa koy seetaan mais man du seetaan porno ba billaahi wallaahi taala du ma koy seetaan yow yaa xam yu bon seetaan yooyu di ko seetaan yaay coach laa wax parce que sa réputation moo yàqu mais man du ma seetaan ah, man mu yàq sama réputation waaye man du ma nit ku bon waaw xam nga amoo réputation bu baax sa réputation dafa yàqu looloo tax yow nga bëgg a takkal ticket xanaa yaw coach daa yow sa vidéo yaa Fernando mi bokkoo leen <laughs> moo yéen a bokk groupe seen alalu alalu wàccal live bi alalu wàccal live bi ñoo bokk groupe alalu wàccal live bi Adamo coach feeñ na Kocc ngi nii de nekk yow bu kenn bu kenn dugg ci live bi yéen ñi ma xam ñëpp bu kenn dugg ci live bi bu ngeen duggee déggoon taameelu arxuraan yéen ak sénégalais yi la du man kii doomi xaj la yow baax na nañ dem rek yéen ak sénégalais yi la du man tànk ak tànk loxoog bët loxoog loxo bët ak bët dinañ jàkkaarloo man ak yow waaye yow toppal fële barki Seydina Mouhamed yow su ma la waxee dinañ jàkkaarloo rek xamala yow dinañ jàkkaarloo nga fekk ku ne waaw ah, baax na dafa yàq ku ne yow doomi xaj nga rek boo nekkee ci tiktok boo nekkee ci whatsapp bi ay waxi nit ngay wax boo nekkee ci tiktok bi nag man duul laa la wax da naan lu tajal sa tot day jéem jaay ne yàmbaa ngay tux ak yooyu di dof doflu <laughs> dof dina jàpp la ay rab tongalu la kat san waay dama koo jàpp dama koo feejal nag <laughs> yow doomi xaj nga quoi boo nekkee ci whatsapp bi li ngay wax ak boo ñëwee ci tiktok bi du comme comme yàlla ak yàlla. xaawi naa suturam de. doomi xaj dëgg nga naan xaawi man da nga mën a xaawi sama suturam. da nga yàgg nëbbatu waaw yow da nga yàgg nëbbatu. man damay dem Sénégal weer wii di ñëw. man maa nga Sénégal mais waa Sénégal xamuñu woon yow yaa ngi Sénégal. déggoo li ma la da ngay dem nañ dem Sénégal. képp ku bëgg sa vidéo deñ demal ci Fernando nga woo ko boo mënta jot Adamo demal ci Kocc Barma directement mooy Fernando mii képp ku xaritam Ah, ah, wala li may ah. wax man Adamo moo gën a xam ne man nitu dëgg la même damaa dof di wax li ma la wax mais du ma wax lu ma leerul dama ne la koc yow kii euh, euh, euh, yow yow ak koc yéen ñaar ñëpp ay doomeeraam ngeen moo yow yow sa sa bopp ngay saaga di yow yaay doomeeraam ji yow yaay doomeeraam ji ndax yéen yéenay seetaan yu bon yooyu man man sama yaay man man samay waajur dañ ma yar man duma seetaan lu bon man samay waajib dañ ma yar duma seetaan lu bon gis nga lii nii keroog ba nga ko dugalee ba nga ko waxee ma taxaw wax ko xam nga yow xam nga yow looy bañ yow sa àdduna soko mooy bu nag ma wax li may wax gaay gis nga ba nga ko waxee benn yoon ma ma ma delloo la ko ba nga ko waxee ma waxaat la booba yow booba yow nga si jàppandu fi mu doon nii saa yu ma salaay bu ma duggee rek nga indi nga indi wax jooju man ko man yow affaire yi nii Fernand Fernand yaa ngi affaire yi nii awis kiti mii nga may laaj awis kiti mii nga may laaj awis mii nga naan yow sax amoore mais mais mais mais mi nga may laaj yow yow yow gis na man gis nga man du ma hypocrite gis nga Adamo mi bàyyi mu sedd amoore bàyyi mu sedd mi xam naa ko xam naa la yow xam naa soko mi ci xam naa awaskiti mi ci TikTok bi lañ xamee lañ xamante awaskiti ngi nii maanaam moom dañuy séq appel ak yëpp laaj ko ndax awaskiti mas naa taxaw ma naan ko aadamu def ko nangam wala nangam laajal aadamu mi nga wax naa ko mas naa taxaw nangam wala nangam di saagawaat gis nga aadamu mi a ah. sa ndey waay yow Fernando yëpp seen dëjëw ndey Amore yaa ngi may dégg dama ah. ne la aadamu mi day dugal vidéo sax ma woo ko di ko di ko yedd gis nga yëfi waali fekk yi nii dama koo yedd dama koo yedd ba ma dama koo ah. yedd yedd yedd yedd ba sonn. gaynde gu sonn man gaynde gu sàngoo deru béy la. non bàyyi ko sedd rek déggoo li ma la wax man de ko waa. man man man du ma ko ko dangay wuyu man ma ma tooñee damay rayanteeg yow. man loolu daw ma de Fernando man soo ma tooñee damay rayanteeg yow mais dama ne la. dama ne la gis nga di sosol nit ki di wax yenn Fernando mi fu mu xam nga bu mu sedd xam nga boo meree nit ñi mën nañ dëggal. mani Fernando bi ba dëkk la ne bul faale sa ko buy wax sa bu ko faale. non non non dafa war a bàyyi loolu quoi ban dëkk nga nekk yow Fernando. bu nekkee ci whatsapp bi di wax ak tranquillement bu ñëwee ci tiktok bi di jéem a jaay bandi bandilu di toog soxla bu ko faale bu ko faale. ne day tux yàmba Fernando da ngay ba jàpp ko. boo fi tuxee yàmba ñoo la dàq tux yàmba naan fi sàngara ñoo la dàq naan sàngara. man de xaw ma yàmba man yaa xam yàmba. mais Fernando day rey a ah! feeñ na. mais kii bàyyi ko mais audio yi ko kii doon waxee naan ko buuse mu naan ko lay katu nit nga ak a ragal. waaw audio audio yaa ngi moom waaw. <laughs> doomu figin doomu ko dama rey. mu naan ko boo ma rayee. say doom judd. naan leen ana sama bàyyi ñu naan seen bàyyi nga kaso wax kii doome ko la quoi nii rek lay def du génn def dara doome xaj yi rek bu xëyee rek il faut mu wax njaaxum quoi ci ci soo ko nag benn côté man dama laa xaw a yërëm ndax yow dëkk bi doo am foo dem yow su ma toog rek dem parce que yow da nga jàpp ne bu may dem damay war a vidéo quoi wan non dama laa yërëm quoi billahi ah, man damay dem de maa ngi dem de maa ngi dem su may. non du tax doo ñëw soirée doo ñëw fenn yow du ma nu Adamo fu ne leen koy gis mais yow fenn. waaw parce que Adamo nekkul ci contrat. mais du tax nga ragal yow du tax nga tapet ragal nit ñi. ma wax la Adamo doy ragal. doo ko doomi xaj yi. ah ban ragal waay wuyu ma. yow bi ngay ñëw Europe dem ci ay soirée moo la indi woon wala ñëw liggéey boo nekkee fii nekk ci contrat di liggéey. vacance rek nga mën a jël. vacance boo amul vacance mënoo dem fenn. soo amul vacance ñeme woo dem fen même sa yaay bu gaañoo wala sa baay gaañu Sénégal sa doo mën dem. non mais soko nag yow ba ndax. comprendre dañ lay xanaa nga dugal ah. nga dugal nga dugal pétition. comprendre pour demander leen permission. Ah. yow demandé woo kenn permission. mais mais comme que nee nga moom di nga ñëw ci Wally Seck beeg sama. xel yow yow demandé ma nga da nga ñëw Belgique. dama lay wax lu leer xoolal man ni may gisee nii. yow yaa ma gën a xam sax ci li may dund. yow xam nga ko de da ngay dof doflu ci kaw ni Sénégalais yi rek du génn de du génn wuy ma fi du dem seen ah. liggéeyu guddi daal la yoroon moom liggéeyu guddi daal la yoroon. voilà Fernando jarul sax nga may seedal loolu wuy ma man soxlawu ma sax. liggéeyu guddi barki salaatu ala nabi. mi ngi a Fernando Fernando dëkk bi dem Sénégalais yi laay waxal Sénégalais yi dof woo ko téléphone na ko yegg si naa laaj ko mi ngi nii du dem fenn. dégg nga gën a ragal jàpp léegi léegi fii la ma woo ay guddi laa la wax dama la ko ñaan vidéo bana yaa bi nekk si liggéey de nekk si liggéey woo bana yaa bi dama la ko ñaan non defal nànk bu xaaral defal génnee ko waay defal nànk laa la wax defal nànk Adamo xam na ni xam na ni xam na ni coach feeñ na coach Fernando Fernando coach déggal ma la génneel vidéo vidéo bànn yaa xoolal fajar la ma moom mii moo ma woo de yëgal fajar na aadam moom mii moo ma woo de nga soko lim lay a fàllu comme gaañu ah, ñu dang ma mën a bàyyi fa ay vidéo taatam ba léegi gasoil bij bi nañ bàyyi woon mu wàcc waaye ko teg ci suuf Fernando non kii dafa yebaate yow yow yow yow aw ba mu naan lay génneel bànn yaa ak mën na yàlla yàlla yàlla moomu suturaal xoolal gis nga. gi gi gis nga taata bi fi génne. xoolal kii wàdd moom woon ne ma lii ñaaw na. billahi xoolal ma nar a taal live de nar a def def live de ko de. xoolal yàlla def na sax ba du ma xool yooyu. billahi wallahi taala du ma xool nga xamante ni sa télé sa sa kër gi ay ordinateur la. barki seydina man man deggo li man ci biir mais soko ko koy ñaan bu génné ko nga né xam nga ki kan moko japp xam kan ñen noko feñal ko koy ñaan man isin ah, adamo adamo gis nga bo amé sa mhm. secret bo amé sa secret bu ko wax jigen topal <laughs> gis nga fana do mais mais soko ko jëk jëk signalé jigen ma ko signalé nga nopi soko kan ngay ñaan ban vidéo ngay ñaan ñaari yoon ñetti yoon ba ñenti yoon non li manul nek deug manul nek deug ki ma ko wax dama ko saga nday deuxièmement bi dama ne ko non defal ndànk. ñeeg eh, may wane xaaral ma xool lam mu may wax ay détails. ma ne ko Fernando ak Fernando nu mu baaxee bu duggee ci live bi day day wax wax yu baax ci patriote di day day. yow yow yow wax nii de la tegaloon kaamil jigéen xoolal waxuma kaamil lañ de mais ku la ku la ku la ku la ku la jubluwooloon ne la waatal ci ci yàlla suñu borom. yow de doo ko waat wax doo waat. yow de doo ko waat. yow yow moom yow doo ko waat yow. di nga ko waat yow. yow moom yow doo ko waat. léegi waatal léegi waat tegal alxuraan nga waat di doo du yow. waaye déggoo li ma la wax yow. yow soo mooy Fernando liiral commentaire yi. man Fernando liiral commentaire yi. waaye non commentaire yi moom man commentaire yi man yooyu xam nga ne man lijjantuwuma. liiral commentaire yi yow xam nga sax. yow xam nga loolu man ay koy kii. mais nag yow mais nag bu lépp wéyee ñaan sa waay. su lebuwee yow ah? sama waay nga mais dama lay ñaan dama lay ñaan rek ngir yàlla bu bànn yaa yow bànn yaa waay ji moom waay ji moom bànn yaa dafa di ko feccal wuy <laughs> wuy ma moom dañ yow Adamo eh. yow seytaane nga non non Fernando kii dafa réew du bàyyi ni leer na ma ne da ngeen maa complot yow ak Adamo non non non Fernando yaa may dégg waaw nga naan man lan Adamo xam na lépp de. Adamo dafa noppi méfier wul na Adamo dul kat la. wedduwul dara wedduwul man man loolu Fernando. ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar waaw. Fernando ñoom ñaar ñoom mooy complot. waaw lu tax Fernando yow xam nga ne man yow Fernando xam nga ne man yooyu duma la ko waxal ndax xamewuma la ko. lu tax Adamo weddiwul gis nga gis nga gis nga kaay moo wax la gis nga gis na gis nga TikTok bii TikTok bii ah. nga naan yéen ngeen bëgg fàll duur rek nga mën ku ci nekk xoolal ku ci nekk rek ak niñ la niñ niñ la yare bi nga la élément la gis nga man man defal nank rek man man man man soko gis na man soko du ma seetaan lay fu ñuy fu ñuy wuli pandee doomu aadama duma seetaan lay fu ñuy saaga ay jigéen bañ na ko ba yow boo tafee ay kii yi bu ma yéegee di ñaan ay saaga ngay def ma dem bu weesoo saaga yi ma daan saaga ay di jàppale lu baa rek nga mujj di def léegi mas naa live di live ak jigéen vidéo sénégalais yi ngay dugal ci page bi koy wax waaye na yow tegul ko kii dafa mës a dugal yooyu kat dafa dama lay wax gis nga xale boobu dafa mës a dugal loolu abus bi di saytaan naan bàyyil mu sedd mel ne dëgg la non non amoore bàyyil mu sedd Fernando bu baax la yow dama def yooyu Fernando loolu sax yàlla rek mu Adamo ndax Fernando amoore bàyyi mu sedd yow damay toj sa copp na katal sa nay du rek nga man ngay bàyyi mu sedd di duul bëgg bëgg kat cosaan ku bisa lufal sa yaay wër di duulal Fernando nan mooy Kocc Barma ne la man Fernando xam na ma man yooyu boo ko waxee yaay wër di duulal Fernando xam na loolu man awis awis Fernando de xam na ma Fernando ubbil sa micro nga wax non defal nank non xaaral defal defal defal nank gis nga lu jig di njaaga ah? soko mi moy doomeram mom xam na soko mo wul dara xam na mom li lepp man ma togn sama bop sax man mi fi dugg man ci live xam nga man duma duma mom mom sa xarit la soko sa xarit la sa xarit ay ay gënal bi dama wax ya gënal ñepp dina ko bindal nan fernando moy ko ci taxaw moy depuis depuis mu am sama numéro mom moy togg ay xaju mu woma di waxtaan ak man tranquille deglul fi sama lay wax at bii nii at bii li nëbbu woon lépp day feeñ parce que am na benn waay boo xamante ne mooy wuyoo ma numbe bu ko faale fexe nañu ba génnee photom photom dëggantaan dëgg la Manumbe génne nañ photo am. gis nga Fernando mi tamit. waaw nañ photo am. mooy Manumbe Manumbe mi live. mi live waaw. non Fernando taal na yor ay photo am nga naan sama caméra boo duggee sama WhatsApp sama photo fa nekk man damay taal sama caméra yàlla moo leen di feeñal ci at bii. Fernando boo gisee daawul feeñ ni mu daan attaqué ay Macky Sall ak yooyu ñu nekkoon ci. billaay wallaay Fernando rëgul dara. kenn laaj Fernando rëgul dara. xoolal su ma wàccee laaj fi xamee ba léegi masul taal vidéo. barke Serigne Fernando taalal. yow sama xulóo man ñaata at la bañ da lay xulóog léegi. man man dama ne la dama nii su ma wàccee laaj bi. est-ce que Fernando mas na taal caméra. ba taal na ko ma seetaan ko ñëpp seetaan ko. waaw na taal léegi na taal xoolal su ma su ma wàccee su ma wàccee nañ la Fernand ñëpp gëm nañ la yow xam nañ ne may woo naa ma bul dugg ci live yi bul dugg ci live bi ñëpp may woo di ma ko wax wallahi azim. <laughs> dëgg la yow nit nit nit soxor waaye waaye da ngay duul. gis nga soxor Fernando dafa taal live woo live dama lay wax leen man boo xamoon man am ni borom boo duggee bala. bo am numéro boo duggee ci WhatsApp am photo moo fa barki Serigne Babacar xaaral xaaral moo moo moo moo moo moo bàyyi leen gis nga yow boo xamoon boo xamoon man bari la Fernando am déglul ma wax la boo am boo xamoon man sama bokk ah di nga ma respecté te o sogo yow barki Seydina Mouhamed dinañ tegante ay bët waaw billaahi wallaahi wa ay lan bët ay bët dina dëgg sa ndey la wax su ma la ko waxee rek gëm na ah, Fernando yow la ñuy tegante ay bët bu ngeen tegee day tegal sa ndey yow def di ma wax man yow yab gi ma yabee lan la quoi. Fernand yow ñëpp xam nañ ne ku baax nga barki alquraanu karim. ñëpp xam nañ ne ku baax sa nday xamoo ko baax ndax yow da ngaa bon. damay ubbi sa lëfal nday de ñëpp xam nañ ne ko ku baax nga. yaa ah. ngi dégg Fernand yaa ngi dégg ñëpp xam nañ ne tëjal la wax. ñëpp xam nañ ne ko ku baax nga. Fernand yaa ngi may dégg ñëpp xam nañ ne ko ku baax nga. jarul justifié jarul mer Fernando ñëw Barcelone Belgique la lay xaar boole la ay nit ñu toj sa cot nday mën naa bañ a déplacé Fernando moom Dubaï laa lay xaar boo fi ñëwee Fernando Koccu Fernando la gën a dee de Fernando Koccu da nga bëgg ñëw Barcelone <laughs> sama xarit bi nag oui wa defal nag aada woo keroog bi mu jarul déplacé wu xam nan la